ak li nga xam ne mën na koo def ci doomu aadama ak li nga xam ne daf koy raxas ci doomu aadama li ñu tuddee amradul batiniya foofu lañ tolloon feebar yi nga xam ne bu nit ki góorgóorloo def kooram ni mu waree mën na ko raxas ci moom te doon nañ ko incha allah danañ ci dellu si wax ci feebar yooyu waaye dañuy taxaw tey ci lenn ci ay ngëneelu koor yoo xam ne te ni dana ko defal doomu aadama bokk na ci mooy li ñuy wax galabatu nafsi wa adawatu sheytaan mooy nit ki fexe ba euh, gañe li nga xam ne mooy bànneexu bakkanam ak gañe li nga xam ne mooy cheytaane yonent yàlla Muhammad dafa wax ne bu weeru koor duggee dañuy tëkk cheytaane dañuy ubbi du aljanna loolu la sayyidina Muhammad wax sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci seytaane yi muy dimbali ko nag mooy bakkar doomu aadama buñ duggee ci biir waxtaan wi dana gën a leer kon bokk na ci li nga xam ne nit dana ko jëre jëlee ci koor mooy def koy dimbale moo mën a dem ba not bànneexu bakkanam bi nga xam ne bokk na ci bunti bunti seytaan yi nga xam ne ci lay jaar ba not doomu aadama moo tax euh, dañ naan isa jaa qahara aduwallahi nit ki waxtu bu rek not na noona noonab yàlla bi ndaxte fa inna wasilata seytaan bokk na ci moyens yi nga xam ne moom lay seytaan di jëfandikoo euh, pour not doomu aadama mooy ashahawat mooy bànneex والاكل اكلك والشرب موي اكل لك نان ييب بوكو نتي ييغا خامني بوكو نتي موي ييغا خامني شيطان داف كوي جيفانديكو بور نوت دوم ادم موتاخ كما قال صلى الله عليه وسلم موتا يندي عليه الصلاه والسلام واخ تي حديث بو خامني ا آه، نينا عائشه مكو سولو جيري كو تي يالا محمد صلى الله عليه وسلم نينا ان الشيطان يجري في ابن ادم مجرى الدم مون شيطان دا فاي دوخ تي دارت دوم ادم داي دوخ تي دوم ادم تي بير دوم ادم كوم ني دارت دي داوي تي موم من نك كون نجي للسبوبة من فضيقوها فضيق فضيقوا مجراه مجاريه بالجوع فضيقوا مجاريه بالجوع كون ننفخ بقتل في مجار من نكي قتل من بالجوع ما ننفخ لقيف سوني فرال لقيف دانا من النط كي يغم نمو الشيطان بيغ خمنا داي دوخ تدوم عدم نحت إن أقرب الناس إلى الله تعالى يوم القيامة بكون كي كي جنا جيغ برومم يوم القيامة كي نيني من طال جوعه وعطشه كو خامن خيفم بارينا مرام بارينا كوك بوكنا كي ني گنا جيغي كي خامن موي بروم بي سبحانه وتعالى من نك واعظم المهلكات لابن ادم شهوه البطن بوكنا تي لي گنا لي گنا ماگ لي گنا ري تي لي الك دوم ادم بوكنا تي موي بانيخو بيرم لك بارين من نتخ فيها اخرج ادم وحواء min daar al qaraar ila daar al zulli wal iftiqaar bokk na ci li tax ñi génne aadama ak xawaa fi nga xam ne mooy daarul qaraar mooy kër ak sax ga muy muy aljanna yóbbu ko ci kër gi nga xam ne kër ak ñàkk la muy àdduna aadama bokk na ci li tax yàlla génnee ko fi nga xam ne mooy aljanna yóbbu ko andi ko fi nga xam ne mooy àdduna bi nga xam ne dafa jeex presque bokk na ci lam lekkoon muy topp bànneexu biiram moo taxoon ba lekk garab bi nga xam ne yàlla daf ko tere woon aadama ak hawa yàlla daf leen bind ñom ñaar dugal leen aljanna may na leen ngeen lek lépp ba moy garab gi bu leen ko laal mais shaytan nax leen jaare ci ñom ba lek lo leen garab gi kon nak ñu top seen banexu bir ba lek garab gi bañ ko lekkee ci leen yàlla genné andi leen fi nga xamne moy aduna kan mune yàlla mo wax ci alquran ne ne wala ci hadith bi mu continué iznahuma rabbuhuma an akli ash shajar an akli shajara fa shahwatuhuma hatta akala yàlla daf leen tere na lekk leen lépp ba mooy garab gi waaye nag ñu topp seen bànneexu biir ba lekk garab gi yàlla daal leen génne fi nga xam ne mooy àdduna génne leen fi nga xam ne mooy aljanna yóbbu leen ci àdduna dégg kon bokk na ci li nga xam ne bokk na ci kon li yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax bokk na ci liy gën a not doomu aadama mooy mu topp bànneexu biiram xokmaaw yi borom xam-xam mooy xokmaaw xokmaaw yi mooy borom xam-xam xekkam yi lu ñu wax man istawlat alayhi wala man istawalat alayhi nafsu saara asiran fii xubbi shahwatiha képp koo xam ne da topp sa bànneex bakkan ba def la prisonnier da ngay mujjul koo xam ne da topp ay bànneexam maxsuuran fii sijna fawaatiha su boobaa dañ lay gaw ci kasu gi nga xam ne moom mooy ay ñaawteefam moom bakkan wa at wa mu ne wa muniat qalbuhu min al fawaid su ko defee dañuy xolam dañ koy xañ ومنع داي خاج موم آه، ليغا خا مو توك بانيخ داي خاج قلبه قول كيغا خا مو توك بانيخ داف كوي لان من الفوائد تي اي جيرين من ومن سقى ارض جوارحه بالشهوات كو خامن سي كير دانكو ناندال تي اي بانيخ توك بانيخ فقد غرس في قلبي شجره الندامه خمال نيو ياغي جيمبات كي سا خول بي غارب بي كي ورنا موتو توك بانيخ باكام gannaaw loolu lay jural doomu aadama inna allaha taala xalaqal xalq lu tax mooy yàlla dafa bind mbindeef yi ala salasati durub yàlla dafa bind mbindeef ci ñetti ñetti anam xalaqal malaika dafa bind malaaki mala malaaki ye malaika yi wa rakkaba fihim al aqla mu def ci ñoom xel walam yu rakkab fihim shahwa waaye defut ci ñoom li nga xam ne mooy bànneex wa xalaqal baahima mu bind bàyyima yi وركب فيها الشهوة مبين باي ما دفت يوم بانيخ كسر دفت يوم ولم يركب ولم يركب فيها العقل يلا دفت يوم خل يلا بين ملاكي دفت يوم خل تدفت يوم بانيخ مبين باي ما دفت يوم بانيخ ما دفت يوم خل واي وخلق ابن آدم مبين دوم آدم وركب في العقل والشهوة مدفت يوم لين خمنا ما خل أك بانيخ faman galabat shahwatuhu aqlahu fal bahaayimu xayrun min waaye nag doomu aadama bi suy bëre di bëre ba nga xam ne wala su sàgganee ba nga xam ne bànneex bakkanam moo not xelam kon su boobaa na jàpp ne doomu aadama boobu bàyyi may ñoo ko gën waaye man galaba aqluhu shahwatahu koo xam ne yow sa xel moo not li nga xam ne mooy sa bànneexu bakkan foofu wa xayru min al malaika jàppal ne kooku moo gën malaaka yi yow koo xam ne yow da xeex di xeex ba sa ban sa xel boo not sa bànneex dañu ko sa xel not sa bànneex rek yow texe nga waaye ko sa bànneex not sa xel rek yow perte nga dégg kon lu tax nag loolu mooy ne yàlla moo jël doomu aadama de ko ci diggante bahayim ak li nga xam ne mooy malaak kon doomu aadama dina baax baax ba gën malaak waaye dina yées siis ba gën a yées bahayima lu tax القران دا فوخ ني وان هم الا كالانعام بل هم اضل مون نيغا خا ندا يو توب سين بانيخو بكر توب سين بانيخو بكر با سين بانيخو بكر نوت سين خيل سو بوبا مون نيو نيو دانيو ديم با فك باي مي تي لني نيكون سو بوبا باي مي نيولن گن واي نك كو خامن داغا فخه با سا با سا خيل نوت سا ليغا خامن موي سا بانيخو بكر سو بوبا داغي ديم با تولوك ملاكي سو بوبا يارين گن malak yàlla def ci ñom banex mais yow yàlla def ci yow banex ngay xeex ak banex bobu set li neex xel ba dem ba tolok kon su boba yaa gën moo yalla mu ne ulaayka hum xayrul bariya mu ne ñoñu ño gën ci lepp lu yalla bind ah, ñi wax ne top sa banex bakkan lan la mëna nit su opé ne na la jural su fekkoo da nga nekkoon buur sax mën la wàccee topp sa ban topp sa xel nag su fekkee nag da nga nekkoon ku suufee mën la yëkkati ñu joxe ci misaal comme Zaliqa bi nga xam ne jabaru buur la woon nekkoon nit ku am doole waaye toppoon bànneexu bakkanam moo ko poussé ba mu dem ba nga xam ne dafa dem ba mujj dem ba gumba ñàkk loolu moo lu am ci wàllu daraja kon gis na ko topp bànneexu bakkan moo moo jur loolu waaye Yuusuf mi nga xam ne dafa not bànneexu bakkanam topp xelam ba topp li daw si bëggoon loolu moo ko def ba mu dem ba nekk azizu misra dem ba nekk buur misra kon topp sa bànneexu bakkan noonu la noonu lay def ñii nett lañ Ibrahima al Xawaas benn waaye bu ñu wax Ibrahima al Xawaas dafa nekkoon ci jablu Rukaam jablu Rukaam mu gis benn benn grenade dal di ko dagg lekk ko rek xar ko lekk gis mu wex mu di ko sànni di dox ci àll ba mu yàgg rek gis benn waaye boo xam ne ñu ngi ko sànni ci àll bi. waa ji waaye yaa ci àll bi weñ yaa ngi ko béw weñ yaa ko wër di ko matt wala wala yooyu ñu koy matt bu ñëwee na ko ba mu ñëwee nuyu ne ko Ibrahim na def. moko yow ya doo def ba xam ma mu ko uri sama banex bakkan rek yalla ya xamul ma yakkan kan wa me waa mais gannaaw foofu nga toll ci yalla do ñaan yalla yalla ya takali takali lak li and ak yow dila mat mu da yow mëno ñaan yalla takali takali lak euh bëgg banex mu man yow li nga dagon diko lek ñukoy wax rumman bi moy grenade bi di ko lekk ga ciaf ga am fi la dégg de cafkaam fii la am te mbugal mi ëllëg dang ko fekk yowal man xiyam man man yi di mat metit bi ki sama yaram bi la mi agu ci xol bi metit bi sama yaram mi àggu ci xol bi kon nak ñaanal yalla mu jëral ci li nga nek mu bëgg bané bo xamne mo la jural ci li man man man ma nga bayima ci li ma nek li nga xamne moy mooy nga banex la bay jural kon gis na kon top sa banex bakal limi jural nit bari na top sa banex bakal dana suufee nit dana toroxal nit waaye nag koor gii ñu nekk jamono ji bokk na ci luy tàggat nit ba mu mën a not bànneexu bakkanam mën a not seytaane te ku not bànneexu bànneexu bakkan rek mën nga not seytaane moo tax yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam ba mu jugee ci xare bi lan la wax xaraj euh, rajaana min jihaadil asgar ila jihaadil akbar jugee nañ ci jihaad ju ndaw ji ñu ngi jëm ci jihaad ju mag ji ñu ne ko lan mooy jihaadul akbar ya rasulallah dem di xeex ak yéeféer di dóorante ay jaasi di rayante nga ne loolu du jihaadul akbar kon lan mooy jihaadul akbar mu ne jihaadu nafsi lolu moy xex sa bakkan ba que fi lay mën jaar pour détourner la sa bakkan rek la mën jaar xam nga xex ak xex ak xex ak sa non yomuna mais xex ak non bo xamne dafa ànd ak yow tak ci yow koku mo jafe koku nak moy bakkan moo yàlla mo ne khatul lazina ya yaa ayyuha lazina amanu xaatilu khatul lazina min al kuffaari ya ayyuha lazina amanu khatul lazina min al kuffaari wa yajidu fikum ghilza na ngeen xex ak ñi nga xamne ne ñoo leen mengo ci yéféri moy bakkan bi nga xamne da fay fétéru bakkan dafa am ay xaaj nag am na nafsu amaratu bi suu am na bakkan boo xam ne day digal borom lu bon waaye nag am na am na nafsu lawaama waaye nag bakkan nag am na fi muy dox di sell di sell ba mu nekk commencé nag di rëccu lam doon def di sell di di rëccu lam doon def di commencé di yedd boppam dafa bu fa àggee rek nekk na xiddis dañ naan man waqaa fil xaram fil xataaya fa huwa insan képp ku dugg ci ñaawteef rek jàppal ne doomu aadama doomu aadama mooy def ñaawteef waaye nag wa man yaxzan alayha fa wa qiddis boo defee bàkkaar tiit ci bàkkaar bi jàppal ne yow qiddis nga ku sell nga waaye nag wa man iftaxara biha fa wa seytaan waaye kuy def ñaawteef di ci bëgg jàppal ne seytaane kon yàlla nañu yàlla mos ci seytaane yemale ko foofu ba suba incha allah salaamaaleykum